الصدق والفاروق جدلي بالإخلاص àllarba rek ci waxtu wi kon tey ñoo ngi jël xasida ak euh, wajjat wajjeesa waaye di xasida gu am solo na di ci jaar di ci xasaale Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér waaw di ko ñaanal yàlla bàyyi ko ba naal yi mu naal yëpp suñ borom defal ko ci mu àggale ko te ñun ñëpp ñu ànd ci moom ndax woote na ci ngir ci jumaa ji nga xam ne ku ñëw rek muy liggéey la boo xam ne du jeex mukk waaye suñ Mountakha woote na ci woo woo ci ñëpp taalibi yëpp bu ci waaye mën rek na ko ci def kon jumaa ji mooy noonu di ñaanal tamit général day sëñ am niveau du mel ne moom tamit yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam kanam kon ñu woy la ci liggéey bi nga xam ne moom sëñ Muntaxa lañ koy defar ndax lépp buñ paree addee suñ tool lañ koy def ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu téwér kon ñoo ngi jël xasida wajjahtu wajhiya sa ni ñu leen ko waxee bay jàll nga xam ne tënk bi dafa solo lool mooy waskurlah fi ayaamin mahdudatin waaw xasida gu am solo la goo xam ne bëri na ay nganeel kon dañ koy jël wajjatu wajjiya za Sim Cissé nga xam ne nee naa mooy xasida gu euh, guddut waaye noonu la bëri ay siñ wajjatu wajjiya za moom daa yomb a fàtte moom daanaka boo xoolee ñu bëri duñ koy jàng lu bëri ndax siñ yi daa bëri te boo koy teg rek di ko fàtte moo tax Sim Cissé moom ak si Moussa Diop noonu la demee maanaam li mu bëgg mooy di ko jàng sax maanaam di ko jàng lu bëri mais boo ko tegee rek da nga koy fàtte kon waruñu di ko di ko teg kon dañu ñëw ci daaj bi rek kon daaj bi nii la. وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا سوخ إلى الله ñu bañ a wax te bu ñu jànkuwul dañu sawxin ila waaye dañoo war a indi sadd bi sawxin ila وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا سوخ إلى الله waaw kon tolluwaay daaj bi noonu la buñ ci ñëwaatee وجهت وجهي ذا قرب من الله bijaayi ahmada sa sawxin ilallahi allahu akbaru min ma kuntu afaluhu gis nga allahu akbaru min ma kuntu afaluhu maanaam njàng mi xaw nooy daal bañ a gaaw ñaar ñaar itam di ñëw kon si si ne moom saa su ne ñaar ñaari daa war di ñëw allahu akbaru mim ma kuntu afaluhu wala su axsa wala arju si kon boobu jàll na beneen bi zikri wa kon daanaka daa daa mel ne njàng mi noonu la koy xaw a tàmbale xeeti rim yooyu ذكري وسكري وارد وعني ومهمداتي بالقلب والجسم والأقلام لله gis na mu jàll ñu doog a xaaj kulli law jalla fi sirrin wa fi alanin foofu tamit daa war a dem ba àgg كليل جل في سر وفي علان wala su foofu tamit yërëm lan de giñ ci waxoon mooy dañ koy yërëm dañ koy def du ñëw rek sonko noonu sirrin wa fi alanin wala su asalu xayran fi xillahi رباني النبي وبشكره ما دمت حيا بخو للحمد لله ñuwéy waqaaniya kon day mel ne nam ko tàmbalee rek daanaka ci xët bi grim yooyu mooy ñëwaarat waqaaniya duratak ريما ووجالي نفعا بلا سبب فسكر لله الله أكبر من عقلي ومن حمالي ومن مخالف كل سار لله mu nekk nag bayit buy am yërmande waaye bu dee ci ci doll yi buñ ci jànkuréel boo xoolee allah akbar mi ma indi ni boo xoolee ci doll bi wala ci téere bi ma yor day mel ni mooy moo nekk ñaareel bi mais bu ñu kuréel moom la ñu njëkk indi waaw loolu nag moom day jar a bàyyi xel xam naa loolu faaw ñu gëstuwaat ko ba xam ndax boo xoolee chaque jour ni ñu bindee téere bi allahu akbar mi maa kuntu atlubuhu moo jiitu waaye fi bu ñu koy jàng ba ci allah siise allahu mi min xaq di la la njëkk a jàng kon loolu danañ ko gëstuwaat kon bu njëkk bi allahu akbar min aqdi wa min hamali wa min maqab kon li doon leeral ci rum naa dañu wat mooy doo ko doo ko waxu doo ko yàqamti wa min maqalifa kulli sa foofu kuréelkat yi ba dañ koy yàqamti wa min maqalifa kulli sarali après nga jël allahu akbar man bi ci kaw allahu akbaru mim allahu akbaru mim ab joxoñ ma maa kuntu alubuhu wa minu alubu kaw nilham nilhamdalil nilhamdalillahi lool wujudul lazi nekk ko lool wu jóg mais da ngay bu ñu koy jàng ñii di hésité lii ñii di jaar nii lool wu jóg du la si xat sano xidamun mahal baqa wa kon xeetu rim yooyu da cee bëri mahal baqa wa xayib rollahi lillahi après na mu doog a ñëw rim semmul له البرايا لهم أفعالهم وله معتر في أبد فالأمر لله مجلد هو الكريم الذي أبغي كرامته kon ñaari ci kaw yëpp bopp yi ci kaw yëpp rim simple waaye euh, fii deuxième xab bi du nekk rim simple وكونه لي مرجوي لدى الله أمر وكونه لي مرجوي loolu boo ko defee dañ jogan وكونه لي مرجوي لدى الله kon loolu dafa am solo ñu xàjj فوزي غدا الكون لسرمدا وله عمري أفوض بالمعتار والله gis nga فوزي قد الكون li sarmadan وله kon bii day def nii dama jaawale sànq فوزي قد الكون li sarmadan وله foofu tamit du jar yàqamti fawsi xadan kawnu li sar madan walahu amri fawwidu bil muxtaari wallahi yadi wa qalbi la qilan la abadan ذا خدمة لرسول الله بالله beneen sëñ bi asga salaatin mi tasliimin bila adadin foofu tamit asga salaatin mi tasliimin bila adadin yërëm ko عليه بالعلي والأصحاب من kon man jàpp na wajjat waaye sa maanaam wàcc ak siñ ni mu bëri dafa daw yaram daal dafa dafa am yërmande kon dañoo war di ko jàngee noonu bañ di yàqam siñ ma ñëwaat ci أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالعلي وال asabi millahi ya rabbi salli wa sallim sarmadan karaman ala wasilati yal usma ilallahi ya rabbi salli wa sallim kon rim boobu di gis mooy ñëwaat ya rabbi salli wa sallim لم سرمدا كرما على وسيلتي العصمى إلى الله يا رب سل بي تسليم على وسيري من اكتفيت به في طاعة الله gis nga wàcc yooyu bu ko Allah si def da koy yor من اكتفيت به في طاعة الله عني محمدا عني محمد عني محمدا معتار من مدير بالآل وصحبه بالمالك الله محمد الجنات عن الحساب خيدا وجنتي في جنان الواسع الله mooy mu njëkk bi ñaareel bi muhammadun junnaati an ilxisaabi xadan wa jannati fi jinnaani waasi kon mu ñëwaat ci muhammadun jannati anil hisabi xaydan wa jannati fi jinaanin kon bii kon foofu la ñëwee taw mu njëkk bi wa jannati fi jinaanil wasilahi ñaareel bi وجنتي في جنان الواسع الله مليني العمام فاق المنى كرما يعمونيا كل مضطر gis kon wàcc yi da cee bëri يعمونيا كل مضطر après ñu xàjjaat wala sax euh, mën nañoo jël benn xaj bi ndax comme fii allah si si daa dëppaat di daa dëppaat daanaka waaye dañuy jël rek xàjj bi après jël daawtukal soit ñu bëru ko wala ñu réem ko rek pour ki topp njàng mi xam ne parfois mag mi day jàng di dëppaat <coughs> loolu nag li ko waral mokkal gi daan mokkal moo tax kon xàjj yi عليه صل وسلم لولتتم به قصدي وسولي ما أرجو من الله gis nga fii daawatukal da kaa bëru waaye bu fekkee ci yenn tënk yi am na yoo xam ne duñ jël bëru bi dañuy jël rek ñaari mi waaye mën naa jël bëru bi rek <coughs> daawatukal yawma fil ayaami murtajiyan shawaba man hajja bay الرازق الله دعوتك اليوم في الليام مرتجيا صواب من حجابي الرازق الله دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا صواب من حجابي tarsiqillahi nga xam ne ñu indi ko ñaari yoon mu simple beneen wajiliyal xamaya muni bila kullafin kasfan wa tayyan wa tawfiqan fiqan min allahi diini kitab ديني كتابك حلمني هي سمادي بالكسف والفيد سيب فهم عن الله اجعله لي أبدا نورا أهوز به عساف والقربى والبصرى لدى الله kon fii tamit gis nga day dëppaat man moo tax ma jël li li mujj rek waaw ijal li abadan nuran ahusu bihi asafa wal qurba wal busra ladallahi tammi mura gis nga daka daka bëru waaye mën nañoo jël rim soit mën nañoo jël mën nañoo jël euh, sans départ waaye mën naa mën naa leeral ñaar yëpp ren comme ijalu li abadan nuran ausu bihi asafa wal xurba wal busra ladallahi kon nañ jël boobu rek tamim muradi wasaf fil umra ya samadi wa kun liya dahra ani la dallahi sinon bu ñu ko naree kee day compliqué ci ñi koy topp waaw kon tammi mura tammi muradi wasaf fil umra ya samadi waaye am na nooy def rek tam nga wëndeel nga wàcc wa kun liya dahra way ani la dallahi nga ñëwaat تمم مرادي وساف العمر يا سميدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله kon ñu déggee ci allah ci se buy jàng ba ci yaasal wasaaraati yow mi topp mag ñi bul jël départ bi sinon dalay sonal yow jëlal lim lim doon mujjee jàng rek loo xam ne leer na nga jël ko ndax départ bi li ko waral mooy ñoom bu ñu juumee dañu bëgg départ ngir jàngaat araf yi ba mu leer ñu doog a jàll kon loolu yow mi topp euh, wajjat wajjat bi dafa war a leer ci moom kon jàngeet nañ li ci jàngeet ci xasida gi ci tënk mooy jàngat bi ma ci jàngat mooy dafa bëri ay wàcc ba pare dafa bëri ay signe ba pare naqari naa takk waaw kon day jar di nafar lu bëree bëri bëri kon wajjat wajjat bu ma ko doon tënk daal ci sama njàngatu bopp daaj bi daaj bu neex la bu dal la bu am tempo boo xam ne tempo bu am solo la maanaam bu dal ba pare signes yi bëri ba pare ràññan naa ci maanaam jël benn ri daa bëri comme zikri wa yooyu da cee bëri allahu waaye bëriwul allahu ak kon jàngeen naa ci ne allah si bu dee wajjat waji sa tàmbali bi ab joxoñ la tàmbali bi noonu moo ko tàmbali daanaka rim yooyu ñoo ci ëpp kon loolu day nekk tënk boo xam ne bu ñu ko defee noonu yow mi topp daaj bi dana yomb ci yow mooy ni koy jëlee mooy wajjaxtu waaj noonu ma duggee noonu day mel ne mooy bëri ci rimi waxaaniya waxaaniya durat xeetu rimi loolu waaye yow mi jàng ci kuréel yi tem nga ne loolu wujub kon yooyu ci tënk rek ak ak wàcce yi da cee da cee da cee bëri wa min maxalifa kulli jarlilay wa min maxalifa kulli jarlil yooyu daanaka ñëw na ci lu bëri ñëwoon na wa kawnahu liyamar juwi ladallahi comme ni ma koy tënkee rek ndax bëru la riim la والكريم الذي أبغي كرامته وكونه لي مرجوي لدى الله nga xam ne ñëwaat na ci azka azka azki azka sala ñëwaat na ci alayhi bil ali wal asabi millahi gis nga nim ci bëri man iktafaytu bihi fi taatillahi kon ak tamit wa jannati fi jinaanil wasilahi kon lii nga yow boo ko jàppee rek après dana la dimbali ci lu bari nga xam ni kon daaj bi nekk di moo koy tënk wajadooye sa maanaam dafa dal waaye tàmbali riim ñaar maanaam day mel ne lu lu yëngatu wajaxtu waaj mooy kon ne loolu wujub kon loolu boo comprendre rek kon siñ euh, siñ Cissé bi wajjootoye sa ci tënk riim yooyu daanaka xëy na moo ci ëpp kon yow mi koy tënk boo koy toppee noonu dana gën a yomb ci yow nii li tax ñu koy def comme genre synthèse ngir mu yomb ci koy topp dana dana la dana la dimbali ndax daaj bu nekk rek ak joxoñam bi mu tàmbalee raaya dafa am joxoñ bi mu am rum naa noonu wala euh, wala xadd karam naa noonu wajjeetu wajjee sa bi moom li ma ci gis mooy xasida guddul waaye noonu la bëree ay siñ noonu la naqaree taq ba pare tàmbali bi ñaar ñaar yi day am ba pare waaye riim yi nekkul comme riim simple carrément nga xam ne nga ñëw daan wajjahtu wajiya sadin wajjahtu waj gis nga yooyu da cee bëri ah ah ni muham kon xeetu signes yi da cee bëri kon yooyu dafa jar a bàyyi xel bu baax a baax kon lii ab tënk la woon ngir ñu ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel te gën a góor góorlu te gën a jàppaat ci xasida yi bu baax xam ne lépp luñ mën a am ci kaw ci àdduna nekk ci xaside yi moo ko gën a kawe waaw nekk ci xaside yi xam ne maanaam mooy denc bi ñu suñ tuwaa dencal mooy sunu sëriñ comme sëriñ géej gi moom xaside yi la waaw ndax comme bu ñëwatoon xaside bu buñ ci nekku noonu kon daanaka maanaam yeneen mbindeef la ñu doon waaw yeneen mbindeef yoo xam ne yu doye la ñu doon waaye ndokk yàlla ba ñu yàlla boole ci ñu yëkkati xaside kon loolu sant la ñu gën kaa jàppat dara bañ ñu ko bàyyiloo nag dara dara bañ ñoo bàyyi loolu jàngu xasida nañ ci jàpp roy saxaaba yi loolu nag du du du du caagi ne mukk boo nekkee ci xasida doo amee gàllankoor déedéet da nga amee gàllankoor da nga amee jafe-jafe waaye dañu ànd ñoom ñaar rek dem waaye dañu ànd loolu rek waaye li am solo la yow bu fexeel buñ la gis mukk ci lu bon buñ la gis ci ci lu ci lu araam buñ la gis ci ci soxna buñ la gis fu xam ne fuñ la fa gis xewe déedéet yow nekkal ci yoon bi rek moo tax doomu adama leen saa naa ñëw xaw a kii waaye du tee yow nga nekk ci ligne bi nga nekk nekk ci xasida yi di ko yaatal te di ko wane di wane Serigne tubaab waaw kon loolu du di tax may soññ loolu mooy gën a xam ne la sëñ Mountakha Gueye waxoon dama ko indiwaat dana nit mën na àgg ci yàlla foo dayoo ak àgg yem te bëggoon paasu ngaabu du ko am kon maanaam mooy nit ki yow nekkul ne damaa sell dama nekk ci xasida waruma am ay jafe-jafe waruma am ay problème waruma am ay bëgg lii mu të ankay ndax ñi ñu gën a ragal yàlla dañ koy dañu bëgg dara mu jafe waaw suñ borom di leen seetaan kon loolu ak yokkute la ka gis nitu saayir si moom léppam dox waaye loolu day mel ni am mbugalam la kon loolu bu ko ñi ñaxee woon na dañu jàpp ne diw daa am lu mu déedéet fekk ne yow mi nekk ci lu baax di góorgóorlu ci yoon yàlla natt yi fu nekk la lay dalee fu nekk lay jógee di ñëw danga bëgg def mbir wala bëgg lijjanti mbir mu të ticc te du yàq dara ci sa garaat du yàq dara ci sa àgg yàlla du yàq dara ci ni ngay góorgóorlu sëñ bi ndax loolu sëñ Muntaxa Gaye wax na ko daan na dal Abdou Xaadir Jilaani daan na daan na ko dal pare jàng du am sax lu ñibbee kon loolu day am waaye loolu liñ ci kiyaar rek mooy gën a jàppal rek nekk ci waaw waaw bu mu tax bu mu tax mukk ñu bàyyi nañ ci nekk ba keroog ñu ñoroo waaw loolu daal kàddu la yoo xam ne maa ngi koy soññ suñu mbokk jàng ñu gën a jàppante te dimbalante te góorgóorlu ci xasida yi boo ñu ko dara bàyyiloo lu àdduna yëngu yëngu yëngu ñin moom nañ nekk ci xasida yi lu coow li bëri lu àdduna bi rajaxoo nag bu nekkee ci xasida rek jàmm rek la am waaye du caagi ne moom jafe-jafe àdduna mook dund mook doomu aadama ñooy àndoo dem léegi nit ki faaw mu jëlee ko jël boobu xam ne lii ni saxa ni yonente yi meloon <coughs> ayoba nga xam ne yonente la ba am ñoo xam ne ah ayoba de am na lu mu def yàlla di fu dara yàlla iblis moo ne yàlla kii da nga kaa dooleel da nga kaa da nga kaa nangam kaa nangam kon man tamit da may may ma dugg yàqal ko yàlla ne ko laa moo ngi noonu sama jaam la mënuloo ko dara jël alalam jël léppam jël ba jël yaramam ba ayoba dem na ba sax di ko lekk te yonent bi yàlla kon ku natt yooyu yàlla da li tax mu indi ko mooy den booy jaaxle mun la bisimilah xoolal ci ayob waaw ayob muñkat bi nga xam ne natt yu ñu dara rek bu ñu xoolee ci ayob dana dana dana dana dana woyof kon jàng ko xasida natt yu la mën a dal da nga sablu da nga nekk li mais da xam ne daloon na ña a jiitu daloon na ay saxaaba daloon na ay nittu yàlla daloon na ba ci suñu roykaa bi Cheikhul Khadim nee na laataa may am li may am dañ naa loo xam ne mburu daju ko ci taal kon nañ xam ne loolu la ñu jàppalante suturante chaque jour damay gën a insister sutura gi ndax àdduna bu ci sutura génne dara nekkut ci waaw sëñ Saliou Mbacke daan na ko soññe chaque jour day ñëw samay kàddu mooy yàlla bu lay sa morom bu wuñu sa ayib dalaa bëgg a weer yàlla na buy génne sa ayib dalaa bëgg a jéggal waaw kon nañu suturaalante bu nit ñëwee na diw dégg nga sàng wala diw nangam nga ne ah lu baax rek laa xam ci moom boobaa jëw dana jeex ci àdduna bi waa diw nangam waaye ñi nag ah waaye diw kay nangam nangam loolu nekkul lu baax bul mu mukk nit ñëw di wax ci sa mbokku taalibe lu bon bañal ba tëdd ci naaj bi loolu mooy sunu force bu deñee rek iblis ñëw na buñ nangu kenn ñëw naan la diw nangam diw nangam te loolu mooy moo ñu yàqal ñu ñëpp mooy diw nangam diw nangam bu nit di ko bëgg nga ne ko bul àgg de baax la lu baax rek laa xam ne bu naraax nga ne ko déedéet loolu bu ñu ko defoon ña yàqkat yi ak def ko du ñaawte dootuñu amati ci ci penc bi doole sëñ Abdoulaye ba mosoon ñoo ne ko diw nangam ndeysaan ak baax boo naroon jëw da nga koy bàyyi waaye ñun au lieu ñu suturaale seen dañuy gën a chargé waa ji naan ko kooku koy nangam kooku koy nangam nii la mel ni